internet yi seetaan IGFM TV dal leen jàmm ci seen deuxième numéro live campagne tey nag ñu ngi dooree euh, candidat Amadou Ba bu benn bokk yaakaar mi ngi woon fële ca Tiwaawoon moom jàpp na ne jàppale këru diine yi mooy tax jàmm am fii ci Sénégal nañ ko teewlu ñëwaat. Tiwaawoon. ngan gi neex na may nuyu du ziar xalif général Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér may nuyu njabootu maam El Hadj Malick yëpp gis nga sunu këru diine yi buñ leen dëgërale taaral leen jox kilifa yi gëdd bi war ci ñoom gën koo dolli man gëm naa ni senegaal jàmm daf fi dolleeku rek moo xam diine islam la moo xam diine chrétien yi Nous avons organisé organiser bu ko kenn Sénégal dañuy dund ci jàmm dama am ku ma toog fekk ci buntu rawdu bi mi ne ma ñun ñooy jataay daayira bi nga Nous ñun ñoo fi nekkal Serigne Touba mi exemple coexistence ci sunu biir dëkk loolu dañ ko war a gën ko dëgëral programme boo xam Sénégal

jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci financement di daan doole weesu nanu kër yi xar dafay weesu mbote amoon nañu programme de bourse de sécurité familiale boo xam ne néew ñu doole yi ñoo ko moomal am na ci trois cent mille ba quatre cent mille yoo xam ne am nañ ko ren ji la ma bëgg mooy yóbbu ko ba cinq cent mille te bu boobaa dañuy tànn ci ñi nga xam ne amuñu retraite moo xam commerçant la boo xam ne da nga mënoon mënatoo moo xam artisan la boo xam ne da nga mënoon mënatoo moo xam béykat la boo xam ne da nga mënoon mënatoo moo xam sëriñu daara la boo xam ne da nga mënoon mënatoo ñu fexe ginnaaw jox la ngay faju gratuitement te doo fay dara fexe ba ñetti weer yu nekk mu am lu ñu la jox nga xam ne boo ko yóbbu ci sa kër mu ànd ak li say doom yi tàmbalee liggéey di àndi ak sa soxna li muy andi bu boobaa coono ji nga xam ni nit ñaa ngi koy jàmbat dina wàññeeku bu baax ci réew mi bu ñu jógee ci Amadou Ba ñu jàll ci Anta Ngom moom mooy benn jigéen bi bokk ci 19 candidats yi moom nag demul fenn dafa préféré toog si siège ngir jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom moom nee na bés bu faloo kaaraange mooy doon priorité am ñu teewlu ko ñëwaat. asalaamualeykum mbokki Sénégal ginnaaw bi ñu waxtaanee démb ci sama yéene ngir doolelaat jàmm diisoo. ak citoyenneté ci suñu biir tey damay ñëw ci ponk bu am solo ci sama programme muy kaaraange ndax nag balaa nga naan naam ne fa ngir sàmm kaaraange askan wi ba mu mat sëkk lekk aar suñu réew bu ma Sénégalais yi dénkee seen kóolute ci diir bu gàtt dinaa indi ay coppite yu yaatu ngir doomi réew mi fu mu toll nekk ci jàmm doxal ay liberté te kenn du ko tënk Waye l'olu li ci jitu moy tagat askan wi ci lu ñuy esprit de défense et de sécurité muy manam sénégalais bu nek def ci xelam ni wattu suñu kaaraange garu bép citoyen le. réew yu bëri bu amé amee ci walu sécurité l'olu moko waral. loolu nak fas ci yéene tagat sénégalais yépp ci école yi ci radio yi ci télé yi ci internet bi ba ku nek xamé fitna ak bala yi mën a dal ci kaw askan wi développer ay réflexes sécuritaires fagaru ba fuñ ko soxlaa mu taxaw temm jàppale suñuy force de défense et de sécurité ba ñu mën a matal suñu karangé. su ngeen ma falee dinaa delloowaat kóolute diggante population yi ak suñuy FDS dooleel sécurité de proximité jekkalaat secteur de compétence police ak gendarmerie yokk taxawaayu sapeur pompier dinañu def ba fu sénégalais jaaxle. Ti fuk ki minut, mi moun ko walu. Gene rafetal dalalbi ak topoto sitwayen ti brigadi ak komisariyay. Tak dine nou double li mou ajan yi, yokou sen djumtoukaye ak sen formasyon. Dine nou dugel bou bar teknoloji yu bes, ti karange, ti sounyi kartye, ngir gene moune djam marlo ak bep prete kriminalite, menas terorist, wole siber kriminalite. ngir xex accident yi dina taxawal genn kuréel dugal ci ay policiers ki gendarmes yu doy jox leen jumtukaay yu mat pour sàmm kaaraange ci yoon wi dinañu yokk taxawaayu FDS yi ci frontières yi ak ci àll bi muy douane police wala eaux et forêt dinañu mottali groupe d'action rapide yu gendarmerie yi taxawal ay quick reaction forces pour armée nationale bi damay Daniel, di delloo njukkal FDS ak seen njaboot yàlla na yàlla delloo si dal ci Sénégal suma la faloo dinaa taxaw bu baax ci ñongal seeni conditions liggéey ak dund ndax nag ki lay jox ko respect ak dignité bu ma faloo livre blanc ngir sukkali suñu défense Adopter loi d'orientation pour organiser waat kaaraange ci biir le temps de la relève est définitivement arrivé. jërë ngeen Mamadou Lamine Diallo bu coalition tekki ma nga woon fee ci Tambacounda moom nag nee na bés bu falo dina industrialiser réew mi di Sénégal ñu déglu ko. Amen.

yako jangal ko dimbalé ko mu jang bañam dem ak baccalauréat ta dem université dara mettiwul loolu évidemment Tambacounda dafa wara université parce que ñun dañu japp né région de Tambacounda en tout cas lu ñu doon wax région naturelle de Tambacounda muy Kédougé Salémata ak Saraya ñëpp ci bok dafa wara nek pôle régional de développement parce que comme comme Sénégal mënta des Dakar kese dafa wara ñëw ba fi pôle régional de développement dina université dina am CHU daanaka moom mooy université moom hôpital bo xamné ay professeur de médecine ñofay jàngalé. Lolu mo tax ñu leen di talal suñu loxo di leen wax né ñew leen jappalé lu ñu le 24 mars ñu jël réew mi teg ko ci code. Thierno Alassane Sall bu la République des valeurs mi ngi woon fee ca Kaolack ndàngaan moom nag nee na bés bu faloo dina delloo Kaolack naataange bi mu amoon bu njëkk ba C'est dëkk bi bokkoon na ci indépendance dëkk yu gënoon naat ci Sénégal Kaolack ville intellectuel la ci jamono ku tuddaan Kaolack di nga wax dëkk bu naat dëkk buy dundal yeneen dëkk ñu bëri daw si ñu dëkk Kaolack ndax gerte gi nga xam ne dafa amoon solo lool ci Sénégal moo doon dugal 80% vingt pour cent recette d'exportation au Sénégal ndax domaine industriel bu Kaolack bi nga xam ne amoon na ay liggéey yu am solo yu ñu fay liggéey muy jox ñu bëri xëy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 pour dépenser fi xaalis muy jëriñu dëkk république des valeurs ñëw na. voté leen ndaanaan la jàmbaar la. voté leen Thierno Alassane Sall. république voté leen Thierno Sall Khalifa Ababakar Sall bu taxaw Sénégal ma nga won fe ci Mbour géej mom nee nak nag bu faloo dina soxali tourisme ci Mbour ñu déglu ko ma déclaration je la commencerai cette fois-ci ci sant bu baax gërëm wa Mbour tay lañu door koor muy waxtu wo xamné askan wi ak umma islamique bépp dañu delloo xel yi ak xol yi ci dox mbokk def dox mbokk may nañu ñu histoire politique la gauche sénégalaise tous les progressistes sénégalais fii la ñu suñu

topp tefes gi topp zone touristique bi tourisme boobu nag doon loo xam ne dafa dooleel ubbite gi Sénégal ubbeeku ci àdduna bi fii normalement ak li fi ne ak li fi am ak li fiy dunde kenn waratu fi woon am problème su fekkee tourisme bi dund na joué na rôle muy rôlu teeru gan dundal gan gi donc mbay mi napp gi artisanat bi commerce bi employabilité bi secteur quaternaire bi yëpp dafa développer fi dafa law ba ci c'est-à-dire li gars yi naan chaîne de valeur au tourisme moo màggagul de defar suñuy xalé suñuy jigen suñuy mag bañu doon ñom les patrons du tourisme dans ce pays lolu moy suñu ambition may jéxalé rek ci ni tourisme bi day influer bu bari ci suñu balance de paiement faut influer notre balance commerciale Nous avons mondialisation Si mu da ngay il faut que monnaie parce que ni sa monnaie non flux touristique di une ñun dañu intégration monétaire intégration économique et monétaire parce que nous monnaie am solo la te monnaie yi bi gën dëgër mooy monnaie bu dëkkin ak dëkk yu mag boore ko wala dëkk yu bari bopp bokk ko kooku nag beneen paradigme la boo xam ni soo ko jëlul en compte sa politique de développement da nax saay maa ngi leen di gërëm di leen sant. caravane Bassirou Diomaye fay bu Diomaye président 2024 mi ngi woon ca Mbao Guy Marius Sagna ak Mimi Touré nekkoon ñu ñu ci ràññee ñoom nag jëluñu kàddu dañ saafonte rek ak askan wi ñu seetaan leen ñëwaat Boubacar Camara bu coalition jengu Tabakh ma nga won ci Keur Massar Senegal nak neena juroomi juróomi yi Senegal amé mom la nara faj bi ci jitu moy ndol ñu déglu ko. mbokki Keur Massar Kama mu ngi len di nuyu. réew mi fi mu tollu dafa soxla ku xam askan wi dafa soxla ku bëgg askan wi. dafa soxla koo xam ne kii du jël alalu askan wi di ko jëfandikoo pour boppam senegal dafa am juróomi góom góomu ndóol góomu ñàkk jàng góomu ñàkk xëy góomu ñàkk karange ak joomu góomu ñàkk faju waaye nag Sénégal am na docteur kan mooy docteuru Sénégal ma ne leen de mane ne docteur nu muy def day jàng am xam-xam dafay yaru dafay teey dafay bëgg réewam ma ne te du sàcc alalu réewam ma ne est-ce que bukki dinañ ko dénk seel ma ne est-ce que bukki dinañ ko dénk sel ah def leen attention de man nag li ma naqari mooy xaalis bi ñu dugal yëpp ci réew mi di ci sonn dañu jékkee-jékki rek gis ne am na benn catégorie ay bukki ñoo koy jël di ko lekk ñu ne noonu duñ ko nangu est-ce que yéen di ngeen ko nangu golo di béy paamun di dundee mais duñu ko nangu pour dafa nekk place boo xam ne bii bu ñu liggéeyee senegal rek faj góomu Sénégal rek bu ñu ko buggee liggéey rek ci Pout lañ koy nattee ñëpp xam nañu avenir du Sénégal avenir la région de Thiès pour le. sama projet mooy capitale bi Dakar ma indi ko Thiès kon nag bu ko indee Thiès indi naa ko léegi nag li xew war ko xam mooy Sénégal dafa am yu xam nga cinquième président de la république juróomi góom cinquième président léegi nag pour faj ko nu ñuy def déglu leen ma bu baax pour faj ko dañuy jéngu jagal ba pare nag nga tabax boo ko defee lan mooy xew xel yi dal xol yi féex poos xel yi dal bu PUR ma nga woon ca yëmbal moom nag neena na yaram mooy priorité bés bu falo dina ci taxaw bu baax nañ ko seetaan ñëwaat Wa yëmbal kontaan ci yembal si leen si sunu frère le meilleur maire du Sénégal waa yëmbal bu ñu feebaree bëgg a faju ji dañuy génn waa Kër Massar sax lay wax dañuy génn département bi dem faju ji feneen ñun ci sunu programme nit ak naataange xam ngeen ne santé c'est au cœur de notre programme nous bëgg fi ci département bi ñu ériger fi hôpital bu mucc ayib niveau 2 pour que wa département bi di mën fi di faju la jeunesse jeunesse su ak Kër Massar fi réew mi yegg ko fa les femmes de Kermassar, nous allons travailler avec vous on nous allons autonomiser les femmes je l'ai dit

pour créer la plus grande industrie de recyclage au Sénégal Beugna, avec le maire Baragay ak Yambol... nous créer musée pour savoir waxu histoire pour Sénégal parce que c'est extrêmement important li enfin pour la jeunesse de Yembel, Moi nous allons créer avec le maire Balagaï, c'est dans notre projet, le plus grand incubateur d'emploi des jeunes. Accompagner les jeunes pour nous mener nous monter un projet, nous coacher nous faire leen business plan muy ben endroit boo je ne suis que Massar je ne suis suis nous fa nous bu leen neexee dañuy ñëw toog fekk ordinateur fekk coacher pour nous mener à incuber nouveaux projets. Babacar nous te félicitons nous t'encourageons nous sommes avec toi nous sommes avec tout le conseil départemental pour faire de Kermassar le plus beau département du Sénégal je vous remercie Déthié bu coalition Déthié 2024 mu nga woon fële ca Koungheul moom nag nee na li ko a mooy un Sénégal bon à vivre et un Sénégal bon à voir nañ ko déglu ñëwaat ci plateau bi. Sénégal yi nekk daan ka fa fekk wax que ni li ni nar mooy am un Sénégal bon à vivre et bon à voir bon à vivre pour que lepp luy jafe-jafe aju ci dundu gu cher gi aju ci faju bu jafé gi aju ci jang bu jafé gi aju ci mbay bu aju ci mbay bu wër jëm ci industrialisation aju ci sécurité bu nu war renforcer aju yit ci cadre de vie bu égalité des chances égalité des territoires

en tant que président de la République du Sénégal. Abdou Sek, nous la bienvenue dans la coalition des 2024. coalition vous moom mooy coalition de l'espoir mooy coalition de la vérité mooy coalition de l'engagement patriotique mooy coalition pour le développement social le développement économique et coalition boobu dafa jóg pour liggéey Sénégal ci jub liggéey ko ci dëgg fexe ba jàngoro yi nga xam ni kenn nettaliwuñu ko ci këyit dafa doon ay jàngoro yu nu dund ak askan wi ci fépp fu nu mës jaar ak tournée yi nu mës def gis ni nit ñi ñoom ci coono bu rëy rëy da ngeen xàmme bulletin bi moy bulletin bi nga xam ni ñaari couleur ñoo ci nekk couleur bu jaune bi ak couleur bu weex bi bu leen leen jaawale. mbokku internet yi seetaan IGFM TV lii lañ leen indi indiloon ci seen émission live campagne di leen jox dig daje suba ak yeneen candidat bon ndogu.